salaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax te di leen tuubalaat bu baax a baax te jéggaluwaat bu baax ci kàddu yi ndax warul ndax jëwriñ yaa ngi fi waaye xam ne ndigal moom dañ koo munta weesu waaw gannaaw bañ santee yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu baax a baax tey santaat sëriñ Fallou waaw di la wax ne la rek ne ñoo ngi fii kër Soxna Maama Mbàkke moom Serigne Fallou comme niñ ko daan defee ci at yi yëpp weesu waaye ren nag mu wuuteeg at yëpp ndax ndigal li ndigal nag ab taalibe moom bu ndigal wàcce ko mënul lu dul jëfe moo tax tey ji mu demee nii mu demee nii waaye doon na fi gën a yaatu waa ñu ngi ñu ngi ciy santaat Serigne Touba bu baax ba ñu suñu borom taw féexalee ba ñu mën a jot ndigal jëfee ko tamit bànneex ci ñun waaye ñu ngi ciy santaat bu baax a baax a baax di santaat suñu kilifa gii fi nekk di soxna Maawa suñ borom yàggal ko fi te wéral ko te kàttanal ko ngir ci barkeb Serigne Fallou donga yi ñu warit ñu nekk séq liggéey bii ñu ngi leen di ñaanal ci barkeb Serigne Fallou suñu borom kàttanal leen te wéral leen ci barke Cheikhul Khadim waa moom daal dafa mel ne kàddu yi mënul woon gudd ndax fi ñu fekkee la ndax daanaka ndigal moom bu jibee jëfe rek lañ ciy daal di dekk waaye daa am loo xam ne daa mënul ñàkk ndax eh, ay ay ndax ay gan ñu fiy ñëw waaye kon lii yëpp mënoon duñ duñ ko def waaye gan ñi dañoo mënul ñëw nga toog di leen seetaan waaye loolu képp la ak wàccekat kaamil yi nga xam ne ni ko sëñ bi digalee woon ak ñu nekk ci xasida yi faaw ñu defal leen ay berndeel moo waral lii képp waaye ñu ngi ciy santaat sëñ Tuubaa bu baax a baax baax di santaat sëñ jëmm ji ak waa télé bi ñu ngi leen di santaat bu baax a baax ci jëf ci te xam ne rëy na di sàkku nag ci bés bi di bésub sëriñ Fàllu bi nga xam ne moom de ba fi lu daan dugg ci réew mi xel yëpp ci moom la doon daje ba doon wax bu ñaanee mu dem ñoo ngi ñaan ci barkeb sëriñ Fàllu sëñ Abo mii fi nekk suñu borom wéral ko te yàggal ko te lii ñuy wax ab gàllankoor la ci réew mi yàlla na fi génn ci bis bi ci barkeb Serigne Fallou ñim jotoon na dal yàlla nañ wér ñim mus sa dalit yàlla bu leen dal ci barkeb Serigne Fallou